ñi ajoon ñi ngi bëgg a ñibbisi bokk yi réew yi nga xam ne benn ci réew yi nga xam ne dañuy dund lislaam bu wér gu nekk mag yam ca képp ku nekk gën ko bëgg sama moroom ñu di ca rawante nga xam ne ca alal euh,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 mu ñib si woo ay géwélu juddoom ne ko kaa leen bàkkal ma samay maam ak samay baay ca bisam ngana lega boo muy jëfar yàqu sa lii jombut la sa baay fi defoon nangam li jombut la sa yaay fi defoon nangam bu yu kenn xamut loola tamit baaxut dem ca jàkka ji rek defi farata jërut bàkku lenn ki soxna yi moom jàppeetuñ ko ak jaamu yàlla far dañ koy jàppe seen xewwi aada yi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 ñam yi teral nit ñi dox fuqaraaw lekk rek nga ñaanal nit ñi te yemale ko fa bañ caa dugal tiitaru puukareewu